Sénégal waxtu bi may wax ak yéen nii li nga xam ne moo di liberté de la presse salfaañee nañ ko bu baax a baax ndax suñu naataango bii di Pape Alé moom la ñu jàpp ci ay condition yoo xam ne dafa laaj ñu samp si ay laaj Pape Alé ni ñu ko jàppee lu tax mu war a lëndëm si bopp nit ñi mooy ñu ngi ko jàpp dimanche ba pare mel ni ku doon seet criminel xam nga Pape Alé la jumtuwaay bi muy liggéey la am adresse bu ñëpp xam moom si wàllu boppam dafa am un domicile régulier dama mënul comprendre nan lañ mun a dem di ko cueillir ci mbedd bi jàpp ko comme un vulgaire bandit bu doon recherche de benn dimanche li nga xam ne nag moom lañ koy moom lañ ko tuumaal soo amee première lecture rek mais li nga xam ne mooy dafa sal salfaañee secret defence soo ko déggee noonu rek da ngay yaakaar ni moo am tort alors que amul benn tort ku ma yàgg déglu xam ni yàgg naa artu parce que ni ñuy woowee secret défense nekkul loi boo xam ne dafa isole dama ne loi bi tënk information ci journaliste dañ ko tënk ci confidentiel information confidentielle information secret défense ak information boo xam ne dafa affaire bi dafa nekk en instruction walla mu nekk sous le coup d'une enquête soo demee jëli tey ji Pape Alé Niang vendredi ñi bindoon ci affaire Ousmane Sonko bi janoo ak juge bi ñépp da nga leen war a jëli moo tax verdict bi de la part de professionnels de la presse c'est sans appel arestation arbitraire la maanaam dañ ko jàpp ci seen teeyaayu bokkan dañu bëgg noppiloo Pape Alé Niang jaaree fa ñëpp ñi nga xam ne ñooy def ni moom ku si amul fit rek ñu noppiloo la mais dama wax dañuy perte seen temps ñaata Pape Alé Niang ñoo am Sénégal boo jëlee Pape Alé tëj ñeneen yi dinañ continuer di wax nga tëj leen ñeneen dinañ gën a fël di ñëw chroniqueurs yi di gën di bëri journaliste d'investigation yi di gën a bëri ndax comme ni mu ko yàggee wax dëgg rek mooy mujj te Sénégal nag lu koy defar mooy nit ñi mun jël seen responsabilité wax ni dëkk bee ngi yàqu ba pare nag di viser ñi koy yàq bañ a nekk noonu rek di maquiller c'est-à-dire de compte rendu moo jeex Sénégal léegi fu mu nekk nii journalisme d'opinion moo fi am te moom moo ànd ak contexte bi ndax soo nekkee ay nit yoo xam ne dañoo bëgg yàq Sénégal lépp lu mu leen jaral dala war a jaral lu ëpp loolu pour nga sauver Sénégal te foofu lañ toll Pape Alé Niang est lu mu wax dafa graaw xam nga lan moo graw mooy ngay diffuser de fausses nouvelle joxe ay information yu amul mais yow suba teel jël affaire di ko laxas si ay secret défense li war a am mooy xam nga lan armée wax est-ce que lu mu wax dëgg la walla du dëgg waaye taxaw am procureur boo xam ni ñii bu ñu jafee nii jalgati te li ñuy wax daf la arrangé jëm si opposant yi nga noppi si li nga xam ni beneen journaliste bu ko defee te moom li muy def arrangé wul yow ñu nga fi nekkal muy waa pouvoir nga dem jëli ko di ko jëmma a tiital ndax garde à vue bi ñu def Pape Alé Niang teguñu ko fen ba pare yaa ce qu'on appelle la les civilités nit nit danga koy jox cërëm ormal ko jox ko une convocation en bonne et due forme ndax nekkul vulgaire bandi boo xam ne dañ ko doon recherche mu nekk en fuite wala nekk un fugitif mu ngi woon fii Sénégal ku ko convoqué woon tey si altine bi mu ñëw pourquoi aller le chercher un dimanche alors que li mu wax wax na ko bu yàgg pourquoi cette précipitation pourquoi cette manière militaire de faire pour tiital niñ ñi da ngeen di perte seen temps mënu leen fi tiital kenn njiitu réew mi nag ak gouvernement am jël nañ ay mesures jël nañ fukki mesures ak benn nee nañu pour wàññi la vie chère mais soo ko analyser par exemple nañ jël mesures yi nga xam ni moo jëm si jàng bi mesures yooyu de xam nga pour kañ la pour octobre deux mille vingt trois la de muy dans un an ndax école yi inscrire nañ ba pare école yi ñu wax wàññi nañ inscription gauche droite wàññi nañ lii bu ñu leen yokk lii bu leen def lii mais loolu c'est déjà passé loolu kañ kañ lay am effectivité mooy dans un an octobre deux mille vingt kon nañu wàññi si onze yi ñaar wala ñett ndax mesure yooyu pour mu effective problème beneen ñu ne loyer bi janvier mooy kon c'est pas une mesure immédiate ndax fi yëg janvier sori na de ñetti weer la boobu tamit nañ ko xaw a wàññi si onze mesures yi mu des la mu des yi nga xam ne nee nañ wàññi nañ lii wàññi nañ lii wàññi nañ lii yokk nañ lii li des ba des mooy wax wàññi dafa yomb waaye taxaw si effectivité mesure looloo am njëriñ looloo am solo nee nañu jox nañu rendez-vous mercredi mesure yëpp dina effective ceeb bi dina wàññeeku diwlin bi dina wàññeeku ak leneen ak leneen dinañ wàññeeku ñoo ngi xaar ba mercredi est-ce que effectivement kilo ceeb bi ñu wax trois cent vingt cinq lay dem est-ce que dina dem effectivement trois cent vingt est-ce que litre diwlin bi dina dem mille deux cent alors ko presque ñu ngi ko doon jëndee deux mille francs ak ban xeetu dëwlin la parce que bu ñu jël mbir yi di ko enrobé ci qualité yi est-ce que fépp lay wàññeeku est-ce que qualité yëpp ay wàññeeku lu toll ci huit cent francs est-ce que commerçant yi pare nañ pour wàññi prix wala tey booy dal seen kaw ay amende ngay teg ak nan nga koy contrôler parce que nag xam nga lu ñu war a def mooy concerté wu ak commerçant yi ba nga xam ni xam nga nit mu mënoo ko fekk këram ne ko da ngay jaay par la force ñoom bu ñu demee ba ba boycotté prix yi kii yi nag yenn produits yi Sénégal fan la jëm ndax ku jaay dëwlin bi arrangé wu mais bu la neexee nga ne jaaytuma dëwlin ku jaay ceeb bi arrangé wul bu la neexee nga ne jaaytuma ceeb ku jaay oño bi oignon local ak oignon importé ku mu arrangé tu bu la neexee nga ne jaaytuma oignon kon mbir mi il faut pas crier victoire tout suite surtout ñi xam ne ñooy population bi mu leen mu leen gars yi jox comme information comme quoi ni rek wàññi nañ prix yi nii rek sur le papier ba ngeen yaakaar ni l'affaire est réglée xaar leen ba teg si bët na affaire bi na mesure yi effective bu effective ñu toog weer ñu mun ne lii kat mesure effective la mais man dama dégg ñu ne kilo mburu bi wàññi nañ ko cent soixante quinze may laaj Sénégal kilo mburu ñaata la loolu mooy sama laaj kilo mburu ñaata la doon ba ñu ne wàññi nañ ko ba cent quinze moo jaaxal ñëpp gars yi daal mel na ni dañoo dugg seen palais climatiser seen salle waxtaan ba mu neex leen rek yow suba teel rek bind seen këyit ne wàññi nañ lii wàññi nañ lii wàññi nañ lii bi nag ñëpp si kontaan ñëpp si d'accord lois bi cher na ñëpp kontaan nañ si ñëpp d'accord nañ si kon loolu du lu ñuy waxtaanee ci mais na mesure effective beneen boo xam ne bëggoon naa ko waxtaanee tey mooy protection de sénégalais de l'extérieur mooy maanaam sénégalais yi yi dund à l'étranger lu jara seetlu la xam nga chaque jour ngeen dégg rey nañ benn sénégalais dëkk bi dëkk bee dëkk bee te en général du am mukk suite dañ siy wax ñaari fan ñetti fan rek après ñu fàttee ko loolu nag lay artu waa dëkk mi ñuy wax Gabon dafa am benn homme d'affaires sénégalais bu fa am problème yoo xam ne ay problème privé la ñu bugg ko def problème national ba benn structure benn kuréel foofu bu dangereux boo xam ne mooy service de renseignement bu Gabon ñu koy woyee B2 dugg si te gis nga en général B2 soo amee ñoom problème nekk étranger lu ne mën na si fekk li ñuy bañ mooy homme d'affaires sénégalais boobu nga xam ne établi au Gabon depuis des années et des années li ñuy artu suñu gouvernement li ñuy artu ambassadeur bu Sénégal ca Gabon mooy nañ ko protéger jox ko ay àqam ak ay yelleefam loolu rekk lay laaj bu ñu fi toog mukk yow suba teel ñu ñuy andil koor naan ñu accident la wala mort naturelle li am mooy cet homme d'affaires et en très bon santé nañu ko protéger protéger ay intérêt foofu ci Gabon ndax daf fay liggéey te ku nekk am nga droit dem dëkku jàmbur liggéey fa di enrichir te problème bi nga xam ne moom la jàppee problème officieux nga nekk un problème officiel ndax moom si wàllu boppam moom lañu tooñ saaga ko mu porter plainte kon affaire bi na dem ba si cappaandaw ga mbokk Sénégal lii moo doon chronique bi leen andil tey jii di chronique li xew Sénégal di leen gërëm di leen sant ci teewlu bi leen jox dox daje suba incha allah si Sénégal 7 point com jërëjëf.